asalaamaaleykum mbokku Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di di ziar ñëpp donc euh, te jii cryptomonnaie lañ leen indil donc euh, dañuy wax lu jëm ci cryptomonnaie yi par rapport ak euh, état actuel bu cryptomonnaie yi toll e ndax jar naa jënd wala jarul jënd nan la ñuy investir ci cryptomonnaie et est-ce que vraiment war nañoo. war nañu investir ci ci ci ci cryptomonnaie daal dinañ ci tontu dinañ tontu ci pas mal de de daal kañ ngay jëndee euh, nan ngay jëndee et est-ce que da ngay jënd fan ngay jëndee euh, lu jëm ci lu lu bëri daal lu jëm ci cryptomonnaie daal dinañ ci dinañ ci tontu donc avant loolu euh, bu nekkee voilà gen ngeen ci si chaîne bi mën ngeen abonné wu et puis ngeen bàyyi commentaire bu nekkee am ngeen question daal donc. chaîne bi euh, crypto monnaie lañ wax euh, trading lañ ciy wax donc la ñuy wax lépp lu ci jëm ci crypto monnaie ak euh, trading donc am nañ ci ay formation gratuite yi nga xamante ni boo xoolee si chaîne bi daal tànn vidéo bi nga soxla daal di nga am li nga xamante ni moom moo la moo la yitteel daan ko lépp lu jëm ci crypto yi daal ak ci trading dañ koy wax ci chaîne bi donc abonné leen aimé leen vidéo yi et puis partagé leen vidéo yi au maximum daal donc comme ni ma ko waxee tey jii nii crypto monnaie daal lañ leen. lañ leen eh, indil donc euh, comme ni ngeen ko ni ngeen ko gisee nii voilà donc euh, ñu ngi nii ci ci site euh, de de cotation CoinMarketCap donc gis ngeen ni crypto monnaie fu mu toll nii dafa dafa dafa xaw a wàcc. donc ça fait quelque temps que crypto yi dafa dafa xaw a wàcc mais loolu loolu loolu loolu jafewul daal donc jafewul parce que comme niñ ko xamee moom crypto monnaie dafa yéeg ak wàcc donc bu yéegee yow da ngay profito nga nga jaay e bu wàccee da ngay profito nga nga jënd daal donc dinañ ci ñëw ci ci ci détail daal donc avant ñuy tàmmali eh, damay fàttaliku ñi nga xamante ni par exemple rejoindre guñu groupe Telegram bi mën nañ ko rejoindre parce que euh, am nañ si euh, am nañu bëri ñu si ne et mën nga ci laaj sa question mën nga ci poser sa question mën nga ci tontu euh, nit ñi ñi nga xamante ni dañoo am ay jafe-jafe daal donc lépp lu jëm ci crypto monnaie daal ak trading moom bu la intéressé mën nga abonné si chaîne bi et puis nga rejoindre euh, groupe telegram bi daal parce que dafa am ay formation yu bëri tamit yu ñuy partager si ci ci groupe telegram bi daal boo amee question mën nga ko poser si si groupe telegram bi way laa nga bàyyi ko ci commentaire yi euh, si suufu si suufu vidéo yi daal donc euh, léegi euh, dañu jëm ci ci vidéo bi directement donc dañu jëm ci ci vidéo bi bi directement donc comme niñ ko waxee crypto monnaie donc déjà war ngeen xam ni depuis depuis comment dirais-je euh, depuis euh, Covid bi donc euh, yu yu bëri jot naa xew donc gis ngeen crise mondiale bi donc Covid bi ñëw na guerre bi ñëw na et pas mal de manipulation tamit ñu ngi am ci fan yii nii donc par rapport ak crypto monnaie mais loolu du du du tàmbali du du du du donc wax naa ko ci yenn vidéo yi donc crypto commerce la donc. commerce bi nga xamante ni ñu bëri ñu ngi ciy am xaalis bu bëri bu dul bu dul bu dul jeex donc c'est bien normal que parfois mu yéeg parfois mu mu wàcc mais bu yéegee ak bu wàccee yëpp c'est conditionné cest à dafa am lu tax mu yéeg dafa am lu lu tax mu mu wàcc mais man en tant que investisseur ci crypto-monnaie du ma jënd bu yéegee yenn yéeg yi duma ko jënd damay xaar ba mu wàcc pour ma mën a pour ma mën a jënd léegi bu demee bay yéeg yenn yéeg yi ma jaay parce que li nga jëndee tey jii cent francs bis bu jaree deux cent franc yow am nga bénéfice yu cent franc mais mënoo jëndee deux cent franc li nga xamante ni euh, mënoon nga ko jëndee si si cent franc wala si si cinquante franc daal donc période bi ñu ngi ci solde par rapport ak crypto monnaie yi mën naa ne solde bu rëy sax bu jëm ci crypto monnaie donc euh, ku ci mën wala ku ku ku jàppandiku daal ku jàppandiku daal mën nga mën ngaa kii daal mën nga mën nga. mën nga investir ci crypto yi fu mu toll nii parce que solde bi boo calculer par exemple bitcoin fu mu nekkoon ak yeneen crypto monnaie yu ndaw yi fu ñu nekkoon li nga daan jëndee cent franc fu mu toll nii vingt cinq franc nga koy nga koy jëndee donc c'est tout à fait normal. am na crise yu bëri yu jot am ci diggante bi et manipulation comme ni ma ko waxee guerre bi Covid bi pas mal de choses daal moo tax crypto monnaie yi wàcc mais boo xoolee investissement en général yii yëpp. yu bëri fu mu toll nii dafa xaw a wàcc am na ñu bëri ñu perte seen liggéey euh, ndax euh, Covid bi am na ñu bëri ñu perte seen liggéey ndax yeneen ak yeneen ak yeneen donc euh, liggéey moo mel noonu entrepreneuriat moo mel noonu investissement moo moo mel noonu mais néanmoins euh, dañ ci bàyyi xel et puis képp kuy investir ci crypto monnaie déjà la base mooy nga nga formé wu et puis boo amee formation et puis nga analyser crypto monnaie bi nga xamante ni moom ngay moom nga moom nga war a jënd daal donc. Euh, li may wax nit ñi mooy maanaam yow boo dul investir pour yow sax investir pour say doom pour sa sa sa doom parce que tey ji xale bi ne bi am cinq ans dix ans un an deux ans trois ans sax mën nga investir moom investir ci moom ci ci crypto monnaie yi ki nga xamante ni am na au delà de dix huit ans mën nga investir ci moom ci crypto monnaie yi en même temps investir ci moom ci ci trading bi donc ñu bàyyi ci xel daal ñun tey jii bu ñu nekkee ay mag mënuñu yenn nii mënuñu formé wu ci trading bi wala. Euh, mënuñu voilà toog fii di xaar yenn cryptomonnaie yi mais mën nañ investir su pour suñuy rakk wala pour suñuy doom sa dépend daal kenn ku nekk ak euh, li li li nga am daal donc euh, investir leen si cryptomonnaie yi waaye laa ngeen investir si trading bi pour yéen wala pour seeni doom c'est c'est voilà donc cryptomonnaie daal jàpp ni c'est c'est la monnaie de de de l'avenir donc kon bi ni ngeen ko xoolee kon ni ngeen ko gisee ñenn ñi jot nañ ci am information yi peut-être ñenn ñi déedéet mais yàggul kese. Euh, Salvador mooy pays bi nga xamante ni moom moo moom moo njëkk def euh, moo njëkk adopté cryptomonnaie comme comme comme comme euh, comme monnaie légale donc yeneen pays yu ñu ngi koy imité ñu ngi ñu ngi topp ci ginnaawam te yàggul rek def na benn benn benn def nañ benn séminaire bi nga xamante ni dañoo invité yoon plus de quarante quatre pays pour ñu waxtaan lu jëm ci crypto yi ak ci bitcoin bi daal nuñ koy légaliser ak yu demee noonu daal donc Sénégal tamit bokkoon na ci ci pays yooyu noonu donc Nigéria bii nii euh, rek yàggul euh, euh, créer na crypto boppam daal mën naa wax voilà donc ñu bàyyi ci ñu bàyyi ci xel daal boo gisee yenn pays yi di ci di ci laajte et puis ñu ci wax ba ñuy daje si yenn pays di ci wax c'est parce que wala xam nañ ni tôt ou tard daal crypto monnaie yi daal moom ñëpp ñu ñu bëri ñëpp dinañ ko utiliser daal voilà ñëpp dinañ ko dinañ ko dinañ ko utiliser donc ngeen bàyyi ci xel bu bu baax daal donc euh, gannaaw loolu boo xoo donc euh, euh, dañuy ñëwaat juste si dañuy ñëwaat juste si si historique yenn crypto comme ni ma ko waxee lan moo tax ma leen di naan ngeen pour seeni pour seeni doom parce que tey jii peut-être que yow mag nga mais mën nga investir pour sa doom mën nga investir pour sa pour sa boo xooloon par exemple bitcoin bi en 2009 donc bitcoin bi moom moo nekk nii en 2009 donc en 2009 ku jëndoon euh, cent dollars euh, bitcoin di nga am vingt mille pièces donc vingt mille pièces ngay am vingt mille pièces boobu noonu boo xaaroon ba deux mille vingt deux tey jii nii yaa ngi am benn bitcoin à trente mille trente mille dollars donc moment bu mu yéegee prix bu gën a kawe bi moom mooy ATH bi dernier prix bu gën a kawe bi mu ngi yéegoon si soixante sept mille dollars loolu en deux mille vingt et un la ku jëndoon. cent dollars ci bitcoin denc ko ba euh, deux mille vingt deux te jaayoo lu mu dee dee yaa ngi am un milliard trois cent quarante mille dollars donc lu mu dee dee dee waaye ñu bëri ñu jëndoon diggante boobu jot nañ jaay lu bëri et c'est tout à fait normal yow boo jëndee cent francs prix bi ñëw ba cinq cent francs wala mille wala deux mille trois mille da jaay même bu nekkee doo jaay lépp mais da ngay jaay une partie. donc euh, loolu moo tax ñuy ñuy ñuy privilégier ñenn ñi ñu jënd ñu jënd moment bu muy wàccee et ñu holder ko pendant un an voire deux ans pour mu gën a jël valeur balaa nga balaa nga jaay donc beneen exemple tamit ci ci ci Ethereum bi même chose. donc Ethereum bi moom moo nekk nii en deux mille quinze lañ ko lañ ko créé donc boobu mooy jar zéro virgule cinq euh, cinq centimes boo si investiroon cent dollars di nga am lu mu dee dee dee deux cent pièces Ethereum donc deux cent pièces Ethereum yi boo ko moment bu bu muy gën a kawe donc yow lu mu dee dee dee deux cent cent dollars yi nga investiroon mu indi la deux cent euh, pièces Ethereum yow yow tu te retrouves à à à cent quatre-vingt mille mille dollars donc de deux mille quinze à deux mille vingt et un loolu xam ngeen ni bëriwul donc euh, juste six ans la donc bëri na bëriwul voilà même chose tamit ci ci BNB bi tamit euh, même chose donc yow boo jëndoon ay BNB en en deux mille dix sept donc deux mille dix sept y a à Euh, il y a à peu près cinq ans donc euh, boo ci defoon cent dollars donc cent dollars bi euh, di nga am mille pièces benn BNB donc mille pièces BNB ni boo ko dencoon ba ci dernier prix am bu gën a kawe bi à savoir six cent dollars tu te retrouves à six cent mille dollars donc euh, lu réel la donc euh, du ay nax donc ce sont des choses qui sont qui sont réelles boo leen demee ci site coin market cap bi fii nii boo cliquer ci Ethereum bi au niveau de coin market cap donc euh, boo wàccee fii nii au niveau du au niveau du graphique donc au niveau du graphique di nga gis voilà di nga gis Ethereum bi depuis kañ lañ ko créer depuis kañ lañ ko créer évolution prix bi par rapport ak par rapport ak évolution prix bi jusqu'à aujourd'hui et voilà donc di nga gis lépp daal li nga xamante moom moo moom moo concerné Ethereum bi daal donc euh, crypto monnaie daal li ma mën a wax daal moom maanaam na ci na ci nit ñi bàyyi xel daal na ci nit ñi bàyyi xel donc euh, dañuy euh, continuer ci vidéo bi donc kañ lañuy jënd donc kañ lañuy jënd ñu bëri dañ may laaj question kañ lañuy jënd ci crypto monnaie donc li ma mën a wax nit ñi mooy yow cryptomonnaie boo ko bëggee am bénéfice da ngay jënd ci fu ma gën a euh, néewee prix bi fu mu gën a ndawee foofu ngay jëndee donc euh, moment bi nga xamante ni ñu bëri ñuy wax ci cryptomonnaie bi lu lu ñu conseillé nit ñi mooy nga bañ a jënd période boobu noonu parce que bu si ñëpp waxee c'est parce que cryptomonnaie bi jël na valeur te bu jëlee valeur période boobu ñu investiroon ñu njëkkoon investir ñu njëkkoon dugg ci cryptomonnaie bi période boobu noonu la ñuy la ñuy jaay donc kañ ngay jënd mooy da ngay jënd période bi nga xamante ni période boobu la cryptomonnaie bi wàcc wala période boobu moom la prix mu wàcc pour que nga mën a jënd donc kañ ngay jaay ki nga xamante ni dafa jëndoon kañ lay jaay donc man c'est le contraire tey jii su ma jëndoon prix bi moment bu mu wàccee moment bi nga xamante ni ñëpp ñu ngi wax ci cryptomonnaie bi ni cryptomonnaie bi cryptomonnaie bi cryptomonnaie bi période boobu noonu lay profité pour pour jaay parce que boo jaayul période boobu noonu ñi jëndoon lu bëri am ay bénéfice dañuy génn ci marché bi te bu ñu génnee ci marché bi prix bi dafay dafay wàccaat donc mais bu nekkee par exemple yow li nga investir bëriwul ku investir par exemple cinquante dollars cent dollars te mu fay la deux cent dollars trois cent dollars bu la neexee mën nga génn ci marché bi mais bu nekkee yow da nga am objectif euh, am mille dollars ou cinquante mille dollars ou dix mille dollars yow période boobu noonu mënoo génn donc yow da gën a xaar voilà da da ngay gën a xaar ça ci yow ndax da ngay holder wala dangay ngay donc loolu tamit il faut nit ñi bàyyi ci xel parce que am na différence ki nga xamante ni dafa jënd pour deux ans ak ki nga xamante ni dafa jënd juste pour un mois wala deux mois trois mois ñaar ñooñu mënuñoo bokk mënuñoo bokk objectif donc bu ñu tontee ci loolu dañu ñëw ci euh, fan la ñuy fan la ñuy jëndee donc plateforme yi ñuy jëndee crypto yi dafa bëri donc man bi may gën a recommander nit ñi mooy Euh, euh, Trust Wallet donc Trust Wallet euh, mën nañ ci jëndee crypto monnaie mën nañ ci jaay crypto monnaie gannaaw loolu noonu am nañu L-Bank L-Bank mën nañ ci jëndee crypto monnaie mën nañ ci jaay crypto monnaie gannaaw loolu am nañu Binance Binance mën nañ jënd crypto monnaie mën nañ jaay crypto monnaie par contre Binance crypto monnaie yu mag yi kese moom ngay am foofu noonu donc donc ku bëgg investir ci crypto monnaie yu ndaw yi utel L-Bank utel Trust Wallet loolu kese doy na ci portefeuille soxlawoo beneen. beneen euh, portefeuille donc euh, lu bu ñu bu paree ci loolu ñu ñëw ci adoption bi comme ni ma ko waxee donc pays yu bëri bëri bëri bëri bëri ñu ngi adopté cryptomonnaie yi pays yu bëri ñu ngi adopté cryptomonnaie yi adopté mooy maanaam ñu ngi wax lu jëm ci cryptomonnaie en même temps ñu ngi ci ciy bàyyi xel voilà ñu ngi ci ñu ngi ciy bàyyi xel donc euh, bu pays mag yi commencé di wax ci jëm ci cryptomonnaie yi ñun investisseurs yu ndaw yi lu ñu mën a def mooy naam mooy topp ci topp ci ci topp ci ginnaaw daal donc loolu daal duma ci duma ci duma ci sori et léegi li ma mën a wax mooy lenn yow bu nekkee par exemple danga nga bëgg da nga bëgg a investir ci crypto-monnaie donc nit mënu la wax investir ci crypto-monnaie nga investir ci crypto-monnaie donc yow da ngay def say analyse xool voilà donc képp kuy investir ci crypto-monnaie jàppal ni mën nga ci gagner gagner lu bari et mën nga ci perte donc yow booy investir da ngay investir li nga xamante ni peut que tey jii soxlawoo ko voilà donc tey jii ni soxlawoo ko mais ni nga mënee ni nga mënee perte as tuuti noonu nga mën a gagner cent fois voire mille fois ces ces investissements donc boo investiroon ci dix cryptomonnaies benn bu la fayee rek yow déjà yow fayeeku nga parce que mën nga perte sax ci cinq yi six yi sept yi huit yi mais bu la benn fayee rek yow déjà récupérer nga lépp li nga xamante ne moom nga pertoon fee mais ba multiplier ko par cent wala par mille parfois même par par dix mille parce que gis nañ dem na ba fay la un million de dollars ci investir dix dollars wala cent dollars wala deux cent dollars donc xam nga ni loolu moom mënuñu wax ni voilà euh, c'est pas rentable wala ay nax la yu demee noonu daal am na ay crypto yi nga xamante ni ay nax la mais yu ci gën a bëri boo ci investir ci projet yu gën a mag yi wala projet yu baax yi. Euh, boo amee chance daal moom di nga ci di nga ci di nga ci sa bopp daal donc euh, ndax da ngay investir ou pas kooku yow kese yaa ko mën a xam voilà en fonction de li nga xamante ni moom nga mën wala moom nga moom nga bëgg daal donc euh, gannaaw loolu ñëw ñu ñëw ci ci ban cryptomonnaie la ñuy la investir donc ci ban cryptomonnaie la ñuy la ñuy investir donc cryptomonnaie yi dafa bari donc bu nekkee ki nga xamante ni par exemple dafa am capital bu ndaw. kooku mën na investir ci crypto euh, monnaie yu ndaw yi jënd ñaar ñetti ñeent ba cinq crypto mu diversifier bañ a jël benn kese donc euh, ki nga xamante ne nag dafa am capital bu mag mën nga dem ci crypto monnaie yu mag yi voilà nga investir ci donc ça dépend ci moyens yi daal donc pour tontu laaj boobu noonu ban crypto monnaie laay jënd ça dépend ci capital bi nga am. donc ki nga xamante ne daal capital bu ndaw la am mën na jënd ci crypto yu ndaw yi euh, denc ko pendant six mois un an voire deux ans ki nga xamante ne nag dafa am ay moyens mën na jënd ci crypto yu mag yi même chose denc pendant six mois un an deux ans ça am ci crypto monnaie yu mag yi même temps ci crypto yu ndaw yi parce que crypto monnaie yu ndaw yi ñoo la gën a mën a fay par rapport ak crypto monnaie yu yu yu mag yi donc euh, crypto monnaie yu mag yi moom boo demee ci coin market cap di nga ko di nga ko gis donc au niveau de coin market cap fii nii di nga gis euh, crypto monnaie yi nga xamante ni ñoom ñoo mag donc boo defee liste euh, liste cent meilleures crypto monnaie yi yow da ngay xool bi nga xamante ni moom moo la gën a rek nga nga investir ci donc ñi nga xamante ni tamit dañoo bëgg investir ci crypto monnaie yu ndaw yi mën nañ xool jusqu'à mille premières crypto monnaie yu gën a ndaw yi nga tànn ci yi nga xamante ni peut moom moo la moom moo la intéressé que nga intérêt nga moom intéressé nga investir si wa illa après mën nga suivre mën na suivre yenn yenn page Twitter yi euh, voilà nit ñi dañuy wax lu lu lu bëri lu jëm ci yenn crypto yu ndaw yi yu am potentiel bi nga xamante ni peut mën nañ def fois cent wala fois mille voire même fois fois dix parce que yeneen crypto def na ko voilà donc crypto yu bëri def na ko et pourquoi pas euh, ñu defaat ko donc du coup nit ñi daal ñu bàyyi. xel ci cryptomonnaie yi ñi am moyens ñu bàyyi xel ci cryptomonnaie yu mag yi et ñi nga xamante ni amuñu moyens yi mën nañ bàyyi xel ci ci cryptomonnaie yu yu ndaw yi daal donc tey jii loolu lañ leen indiloon ci ci ci cryptomonnaie et puis ñu fàttaliku chaîne bi cryptomonnaie et trading lañ ciy wax donc euh, bu nekkee euh, lu ñuy wax ci chaine bi neex na leen wala intéressé na leen comme ni ma ko waxee bàyyi leen commentaire déjà pour encourager ñu et en même temps mën ngeen partager vidéo yi donc am na yeneen vidéo yu yu waaj a ñëw lu jëm ci trading bi en même temps aussi ci ci crypto monnaie yi daal donc formation yu bëri daal dinañ ko wàccee si si bi incha allah donc pour encourager ñu partager leen vidéo yi et puis bàyyi leen commentaire et surtout ngeen ngeen aimé vidéo yi daal donc maa ngi nuyu ñëpp di di ziar ñëpp.